fan la war a faatoo ak fan lañ war a doon te loolu jaas mukk kon nañ gëm yàlla te def ndigal si bon tabaraka wa taala bu ñu ko defee ndonk su ñu ko def ah coono rek dañuy tuural yàlla yàlla defal ñu ak topp yàlla yàlla defal ñu dégg ak topp ñu ngi baal wax dañ ci baal xam ñëpp di gërëm mbooloo bi waa jàkka bi waa karsu bi ak ñi nga xam ne fu jullit mën a nekk jógee ba ñëw fii di julli si fii ñu ngi koy balu ak di ko gërëm di ko sant di eh, gërëm itam ñi nga xam ne ñooy jàpp ci wàllu jàkk ji ci taxawal ndax jàkk bu mel nii dafa am ñu ca taxaw kenn mënu ko defal te loolu loolu mooy li ñu am sant moom la suñu borom doon sallallahu alayhi wa sallam sant sa daal ci islam yoon bi wax ko ne al mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan jullit ak mbokku jullitam lu mel mi ngi mel ni ak rek tabax bu fekkoon dañoo jël biir yi teg fële tabax bu fa am julli yi noonu lañ mel dañuy jël biir yi tegale bi tegale bi tegale bi rek mu nekk lan jàkk mu nekk lan am bâtiment julli yi suñu àndee moom rek moom lay def jàkka nag li muy dundal mooy li nga xam ne fexe ne ba jàkka taxaw te bu julli jotee ñu gis ko ci jàkk moom la yàlla wax innamaa ya'muru masaajida llaahi man aamana billaahi wal yawmil aaxir bu dul jàkk ñu gëm yàlla rek ñi ko gëm nag mooy ñan ñi nga xam ne bu fekkee fexe ne bu jàkk am dindi seen poos tabaxal tabax jàkk ah léegi bu julli jotee dañ gis leen ca mbooloo waaye bu fekkee dañ ne da daa fexe ba jàkk am ñu tabax ko mu rafet loolu waaye kenn du la ko gis boobu ci ñu dundal jàkk waaw da ngay def ñaar yëpp sa kem kattan nga def ko ci wàllu ba jàkk ji am na nga ca mën su ko defee bu julli jotee ñu gis la ci waxtu ju julli juróom yonent bi sallallahu alayhi wax na ci eh, xutba bi mu ne na ngeen fonk julli ndax fekkoon gëm yàlla jëmm la roo nga mooy lan mooy asalaat alors asalaat boobu la ñu am. julli mooy ruuxu gëm yàlla jëmm bu fa roo nga jógee rek mu jeex jullit bi bu julli jógee julli jógee ci moom rek jeex julli bi nag koy def li nga xam ne noonu la ko suñu borom tabaraka wa taala diglee ci la ñu yonent bi salaa salaam yonent bi wax ne sallu kama raaytumuuni usalli julli leen li ngeen ma gis ma jullee. kon nañ fexe ba xam kenn ku nekk ci ñun xam ay farataam farataay julleem lu jiitu loolu charte yi charte yi nga xam ne ñëw ci mooy làmp làmp ak wala yooyu ba nga xam ne yaa ngi taxaw ci lan nga war a def lan saa ñu ko jàng mu jàng jàng alquran bu wér kon léegi bu boobaa defe li nga xam ne mënoo dem ci wax sa borom ca taxawaay ya mat la ko yem si jéema si jóote mat loolu moo ci waaye yow maanaam mën na rek amul benn njëriñ da ngay wax ne toujours vingt quatre heures mi ngi nekk mille quatre cent quarante minutes boo seetee quarante minutes rek mooy kii yi nga xam ne bu fekkee kii bi bu jaajëf seetlu quarante boo ko divisé par cinq kii bu def mille minutes néew na nga gis ko julli ñu ko juróom-ñetti minutes juróom-ñetti minutes te juróom-ñetti minutes bañu kon nañu julli julli bu baax li tax nag léegi ñuy julli. ñu ngi julli te fekk nag ñun amuñ la ñu julli jëriñ mooy kon li ñu war jaar yoon ndax yàlla ko wax ci alquran yàlla lu wax dëgg la inna salaata tanhaa anil fahshaa'i wal munkar booy julli lépp lu bon la koy tere kon nag bu gisee ñu ngi julli suba ak ngoon toujours te fekk ñu def bon di ko waxaan ci suñu biir suñu jullee moo jaar yoon kon nañ delluwaat ci suñu borom tabaaraka wa taala xam lu xam bu ñu xam loo rek xam ku xam loo xam suñu borom àdduna xam loo rek li ñu ko war a xamee suñu wàllu àdduna xam loolu ko ni ko war a xam ñii ngi doon ay architecte ñi ngi doon ay savon ay eh, ñi ak képp ku ci am métier métier boobu fàq na ma xam ko xam ko bëgg kuy liggéey buy ñëw di seet ci xam xam métier boobu mu jox ko mu door jox liggéey léegi nag tax suñu diine ñu buñ ko ak mun doon da xam yow mën a fi la ah tere bi wala xam-xam yaa ñu wax ñëpp la ñu wax kon nañ jël li nga xam ne moo am njëriñ te mooy lan jaamu yàlla te topp ay ndigalam bay ay tereem te yaa ci jëboot bu ko defee loolu moo ñu musal tey ak ëllëg suñ ko defoon lu ñu solo mooy lan mooy eh, yàlla ebal ah, bindee boo xam ne dañ ko gis muy corona mu tiital ñu depuis ñaari at moom tamit kenn mën ci dara ñi nga xam ne ñoo fi ëpp alal ëpp fi doole moom la gën a solo ñoom la gën a la ñu ko yóbbee nag mooy lan mooy woteeg ci biir suñu borom tabaraka wa taala kon nañ dellu ci suñu borom tabaraka wa taala yàlla yàlla defal ñu ak topp ñu ngi ñaanal